aoudubillahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmaani irrahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi noo leen di nuyu di leen siyaare noo ngi ci ñeent fukkeelu jotaay ak benn ci téereb xalim ak leer noo ngi telloon ci xasida wala xadd karam naa ci biir xasida gi wax gi ci sëriñ Tuubaa di wax ne sunu borom na nga ma jàppandalal sama dellu Tuubaa aar ma te fegal ma fa lori mbindeef yi te teeyalal ma sama dëkk Tuubaa yasir rujuu'i li Tuubaa ni waqini adal wara wal tutib li thamma iskaana dëkk googu muy wax ci tuuba mënees na koo jàppe nekk gi mu fa nekk ginnaaw ak làqoom ci zaahir ndax ginnaaw bi mu jógee ci géej gi euh, dëkku fa dëkku fa weneen yoon wuñ xam maanaam dëkkaatu fa daal ginnaaw bi mu jógee Touba dem Mbàkke Bari jaare fa dem Gabon amul benn yoon bu mu dëkkaat Touba euh, ba ni mu làqoo ñu indi ko fi rek baatub jàppandal gi mu jiital ci bayit bi may mel na ne moo waral bi mu làqoo mbir yi daal yomb lool ngir yóbbu ko Touba benn jafe-jafe amu ca moom yàlla daa noppi ci léppam ba tey bayit wi day firndeel cofeel goo xam ne am na ko ci Tuubaa ba fu mën a nekk ci àdduna nekk Tuubaa moo ko gënal looloo waral fu mën a nekk kayit di mbébét sunu borom la ko dëkkam boobu di Tuubaa ba tey dinañu gis ci xaside gi ne sëriñ baa ngi junjuf yéene yu mu am Tuubaa te bu nu xoolee xaside ak Matlabul Fawzayni yéene jooy leer na fa nàññ ci ñaan muy ñaan boroomam ay mbir yu mu fa bëgg ak yoo xam ne it day ñaan sunu boroom dàqal ko ko ca dëkk ba yéene yooyu lay yéene yooyu mu am ci Tuubaa lay wax ci biir xasida wala xadd karam naa gii ne sunu borom yàlla na nga ma nangul te mottali li ma yéene ca Tuubaa gi nga xam ne dees na la fa tabaxal tabaxub diine rabbi stajib waltu kammil maa nawaytu ladaa tuuballati bi ka tubb naa fii ka bunyaana ba tey day wane ci xasida gi ak di seede ak cant diggam ak boroomam ngir musal gi ko boroomam musal ci xat-xat yi génne ko ci fitna yi ak mboolem jafe-jafe yi defal ko it ay teraanga ci lépp ak ubbeeku ci lépp ndax ci biir mu ngi ciy ñaan ne sunu borom wëlbatil xooli noon yi ba ñu jëm ci kudul man ba ñu jëm ci eh, di ko dimbali maanaam sunu borom wëlbatil ko xooli noon yi nga xam ne ñoo ko doon lor ñu wëlbatiku di ko dimbali wala ñu di ko lor baa ñu koy jéem a teg fitna eh, cant googu nag lay tudd ci biir naan sunu borom deeyaale na ak yow tey warul naa la cant koo xam ne. day rëy lool ba gàcceel wursu yaquut ak wursu marjaan naajaytukal yawma yaa barran alayya lahu sukran yu xajjilu sukran yu xajjilu yaquutan wa marjaana loolu rek day wane cant gi kawe gi mu kawe ndax eh, wurus yaquut ak marjaan day yu gànjaru di lu foor loo xam ne lu kawe kawe la sëriñ bi nag joxe misaal ci lu luñ mën a xam rek a tax mu tudd loolu ne war loolu na sunu borom cant koo xam ne day rëy lool gànjaru lool neex lool kawe lool ba féete kaw wurus yi gën a foor tañ xam leen muy yàquut ak eh, marjaan kon noo ngi yam foofu salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu